Basumo. Basumo Mbare Aujourd'hui, on va aller un peu sur l'international pour redescendre sur, Dakar parce que hier, j'ai fait une grande rencontre avec un opposant malien, Omar Mariko, qui essayait de me raisonner Or ça a très mal tourné, très très mal tourné notre discussion. Parce que moi, eux, je les considère comme, comme les suceurs de l'Afrique. Omar Mariko. Un gars qui voulait me dire qu'un président comme Assimi Goïta ose, ose prendre les privilèges d'un chef d'État, c'est-à-dire 150 millions de francs par mois, vous, peuple malien, est-ce que vous savez ça Les IBK et tout le monde avaient 150 millions par mois, le Premier ministre 75 millions. Et puis, il y a des députés noirs un gars comme Omar Mariko, un révolutionnaire qui devait soutenir l'Afrique, qui devait nous soutenir, mais qui est là en France en train d'insulter l'intelligence africaine et l'intellectuel africain. Donc, la raison est-elle devenue blanche Si Ici en France, il y a eu un seul mort. Un petit arabe de 17 ans est mort, non mais depuis l'autre jour, ça pète. Tout le monde a intervenu, tout le monde. Toutes sortes d'autorités. Ministres, députés, imams, conseillers municipaux, tout le monde, tout le monde, je dis. Sans exception, les évêques, les abbés et tout le monde. Maintenant, je m'adresse au système. Surtout vous, l'État français. Vous, en personne. Vous qui soutenez Macky Sall. Qui a plus de 60 morts. Vous qui soutenez Macky Sall, qui rigole quand il sort, quand le Sénégal a perdu comme combien d'hommes, ah, donc maintenant nos enfants sont des rats. Maintenant, la mort de nos enfants, ça ne paie pas. Maintenant, c'est Charlie Hebdo qui est plus valeureux que nous. Ouais. Maintenant, le jeune arabe qu'on a, a tué, il est plus valeureux que nous. ñu ne léegi kenn du wax kenn warul wax Sénégal lu tax kenn warul wax am ñu ma envoyé message naan ma non Ousmane Sonko discours bi mu def wooteti Jésus Saint de Nazareth gars yi dem leen sama discours le 3 ba le 3 juin dem leen sama vidéo bi may wax ci Jésus bi mu ñëwee Pierre de Nazareth bi ñu daggee nopp bi pour Jésus bëgg mu sauver fii laa doon waxee ak Sonko mooy boobu mën ne ko génnal wax nga waxee fi Moussa waxee woon Ousmane génnal nga wax fi Ibrahima waxé won manam dimension am fu yonent yi toll woon ñoom ñëpp dañu préférer jël sacrifice bi sen bop bàyyi sen peuple ñu fri fa la yonent yi toll woon moo tax ku jaawale né dañu bëgg tek ay Ousmane Sonko place Insa ibn Maryama. c'est parce que tu es méconnaissable dans l'esprit c'est parce que tu es vide dans l'esprit très vide dans l'esprit très très vide dans l'esprit c'est logique man dafa am yenn bu fa nit waxe rek damay xamne ta rien pourtant dañ lay gis ngay ngan nganul mais ta rien dans la tête eta tabaski bi tay suba nee lan d'accorduma man ren dama jommale sama bop tabaski romale sama bop tabaski nit dof ana Amidia ana Ousmane Kablin jata ana Kaba mi ñu jënlee commando pourtant njabootu ñëpp tabaski nañ damay bàyyi sama njaboot tabaski comme bu ko mais man soxlawuma tabaski ndax gaa yaa ngi ci biir jeel bi dinañ leen rayal ay xar wante du mel comme seeni kër tey julli ngeen certes ñëpp julli nañ wante dossier bi day yokk di gën a leer balaa ñoo avancer ma wax leen naat fu dossier bi toll point 1 xam nga moy lan julli bu Ousmane Sonko julli julli julliwul ak yeen ben ñaareel bi moy imam buñu jëm ray tay nan dañ ko doon jëm jam pak ak lolu may fatali yow Farba Ngom c'est dommage que Sénégal da ngeen saltel politique motax des fois je me demande mané ne Sur le plan de nos gouvernants, c'est les blancs qui raisonnent, pas les noirs. Oui, c'est dirigeant, c'est les blancs qui raisonnent. Parce que France, nous xool depuis des nous Nous sommes des terroristes. nous sommes des Nous dara sommes Macky Sall Nous ñu des suñu Nous sommes des C'est Sénégal tey kuy sommes des bi dafa war ci sommes des Ngom. Life na ba pare ne len juma bu julli te Sonko wul nañ fa nok ay cocktail molotov ba xam imam bu suñu dara ngeen foog ne bi ngeen ni réunion tok na len point focal baa ngi bon imam bi ngeen dor tay mom xamone na ne tay da ngeen koy dor ndax amu leen woon fit kan mooy fekk imaam jam ko pour ngeen jéem ko sauver ñu ne affaire bi affaire ay terroriste la affaire djihadiste la pour ngeen yokk ko si dossier bi gars yi naa leen deal boo leen teg ci état bi tey il était prévu ngeen rey imaam pour muy clair yokk ko ci dossier salafiste Ousmane Sonko bi ndax dossier ndax Sonko tabaski na démb te tabaski démb bi mooy jàmmam ndax bu tabaski woon tey caaf caaf xam ñoom réunion nañ seen biir ne waxati nañ leen ko gis ngeen bés bu nekkee président bu jëlee décret ne tey la ñuy tabaski dañ koy tabaski yéen démb ay kilifa Mbàkke Mbàkke bokk nañ si ñu ñu jottali loolu démb Sénégal dafa toj de tabaski Sonko bi booy naa ngi gis yéen ñëpp di live tey kenn waxu ci mais moment bi si lu graaw ngeen nekk lu catastrophique loo leen xamul. Yaya Jammeh nii la defoon Gàmbi de ñëw fekk fa ñaari tabaski ñaari korite ne moom jour bu muy julli lay julli ñoom nag teg nañ ko ci ndodd Ousmane Sonko nay leer allo allo waxal ma lii ak allo allo grand déglo ñu ngi ci réunion am ñu commencé ku nekk discuter moo gën a wóor gars yi yéen yaa ngi ni julli di tabaski nekk seen xappi Amadou Sall Farba Ngom Ismaïla Madior Fall Antoine Diome taluñu ko Macky Sall gis ngeen ko dem leen xool ci vidéo yi ko wone màkk yëpp ndax tal na ko mu ngi ci portable am taluñu ko taluñu ko ñoom ñu ngi si Sonko mii niñ koy jëlee fatta ko jant bi di Sonko defee discours am ba pare ne moom day julli avant ñun booy gars yi dañ doon fecc xam nga Sénégal ñëpp d'accord ne tey tey ngeen julli noo mais moom démb la julli ibaadu yi démb lañ julli France ñun fii démb lañ julli Màkk démb lañ julli ça veut tout dire après Tabaski après Arafa ci la Tabaski noo paramètre bu ndaw bobu état exploité nako motax tay tax imam bu Sonko julli won tay dañ don rey imam djel ko kolé ko Ousmane Sonko nak ni kep ko sante Mbàkke ay salafi si légui manam Ousmane Sonko daf fi bëgg a kër ñu sante Mbàkke kër ñu ci si ñu droit jiite ñom ñoo rey gaay pourtant France ben manifestant lañu ñu ben temps Sénégal kenn waxu ci xoola ñëpp a ngi teg yëguñu sax li xew yéen moment bii gars yi xoola li ñuy lal gis bu ñuy door dossier bi bu ko procureur liiree ba pare yéen ñu bëri da ngeen xam parce que dossier bi depuis un an chaque weer ma andil leen si benn paramètre teg dem leen ci live bi dajale rek di ngeen xam dossier bi lan la s'il vous plaît defal leen ma loolu di ngeen xam dossier bi lan la les temps sont extrêmement graves yéen tal tabaski mais ñun ñu nekk di réunion am na leneen luñ tal réunion pour dimbali dëkk bi sauver dëkk bi nee naa leen état bi bu ñu d'accordoon ak Macky Sall bii heure jëli nañ Sonko mais capitaine yi fi nekk nii ak commandant de brigade yi fi nekk nii bu sonn kenn du leen ñàkkaloo fayda doome xaraam yi dañu tabaski ji te ñu ngi ñibbisi si te kër góor gi dem leen rond point yëpp dugal nañ fa Moussa Fall ñëw na ko renforcer commencé nañ fa woon jëlee police mais kan moo fa delloowaat bip lan mo tax Moussa Sall di renforcer fofu pour ñeu jema yak tabaski nit ñi am ay kilifa police tam ñu jël sen responsabilité même boudé li di ngeen baye dëkk bi ci jàmm délo wat ci kër góor gi xam nga dem wàññi won nañ effectif bi <laughs> tay lu tax ñu renforcer wat effectif bi buñ ko renforcer wul won Moussa Fall dafa yok effectif am non moo tax police am renforcer wat effectif bi fofu rek ci digënté bobu am jaxaso bo xamné buñ ko expliquer dëkk bi day tàkk problème ñu ne leen Sonko du ñàkk jaxasoo barricade ba parce que wax naa fi live ne nañ fa bàyyi barricade bu ñu bari xamuñu fi may waxee gars yi gis nga foofu rek si barricade boobu bi ne sécurité Sonko la ñuy gérer barricade boobu dafa am leneen lu fa commencé am leneen lu fa commencé boobu bu ñu moytuwul bu ñu moytuwul règlement de compte police gendarmerie lay mujjee nañ leen dem nañ leen dem barricade buntu kër Ousmane Sonko bu ñu moytuwul règlement de compte lay mujjee parce que waa APR am nañ droit dugg fa te yónni nañ ma benn vidéo benn waajoo xam dugg na ba ci biir foofu di saaga Ousmane Sonko di wax lu ko neex dugg biir si kër góor geeg kat te yéen amu leen droit dugg fa est-ce que vous me suivez yéen amu leen droit dugg fa mais ñoom am nañ droit dugg fa problème yi dafa bari problème yi dafa nuancé wu ba mu ëpp moment bii ñun ñu ngi tabaski ñu ngi julli Sonko def na discours wa keur bat limi jazz wax ci leneen li ñu comprendre rek té man li Sonko wax kessa la waxoon Jésus bi ak Ibrahima ak lool yépp ci wéru tabaski la nekk motax gis nga nit fa nga jang pour nekk nit li ma leen wax foog ñu ñittel carte gi gis nga carte gi foog mu nekk damier doomu adama buñ ko jinnel buñ ko yonental tay imagine tey tay buñu rayon imam ray ab iliman ndax Ousmane Sonko tay la julli même jour bu mu julli jëkk bi tay jaxasoo xam nga li lan la may fatel Youssou Ndour wayam ba gor gi neena aduna ken xamatul papa expliqué ma boo ne lii ñu ne lële boo ne lële ñu ne lee loolu def Ousmane Sonko Ousmane Sonko foofu la toll bu ne lii ñu ne lee bu ne lee ñu ne mu munu si dara moo tax waxu Ousmane Sonko garaaw xoola wax ji mu wax ni mu kawee ñëpp jël ko ne déstabiliser na dëkk bi xoolal xoolal xoolal jàmm ji mu waxee regarde la paix bu mu waxee pourtant yaa ngeen ni tabaski ku nekk naan sa morom balma ak balna la ak baluma la ak ak xawma ma te mu leer ñu ne suñu biir xol ken balul kenn balul kenn ndax ku nekk li nga def sa morom jom nga ko wax rus nga ko ko wax ba kay balu kon bal ak bi fi la yam ci tëflit bi fofu la yam motax ginar sa bu la rombee nit ndax nit dafa ñang dafa muñ ciatu gay il faut que nous am raisonner comme ay nit tubaab ñoo doon nit waruñu ñoo gën ñite. trop tey man j'ai des problèmes avec nos pays. mor yaa ngi am ça ne dérange personne kaso yi ñu ngi tej suñu gaa libérer ay délinquants ça ne dérange personne. libérer Ada face bàyyi fa ñoo xam ne <laughs> non man je ne plus ce pourtant Ada Fass c'est un jeune je n'ai rien contre lui mais problème la ma def wala ñi nga xam dañoo wax lu nga xam ne arrangé wu réew mi kenn tëjugu leen Ousmane Kabiline Diatta lu mu def Ami Dia lu mu def gars yi gis nga nag Sonko moom laay xam ne avec ou sans Pastef il sera candidat avec ou sans Pastef xanaa bakkanam rot wala ñu réussir tëj ko ci kaso ñu te duñ ko génnee te loolu mënul nekk te yéen booy militaire yi ñu woo ne leen dañ leen di def rappel militaire ana ñu ñu woon rappel gendarme est-ce que jël nañ leen laaj leen ñu si bëri ñu ngi ci kaso bi ñu nokk ñu si bëri ñu ngi ci kaso bi ñu nokk combattant yi li ñuy isolé nii combattant yi li ñuy isolé pour tas Pastef ne du dem élection point final combattant yi li ñu nekk di isolé booy Sénégal keroog xam nga waxal nañ leen BRT bi ñu xëy yóbbu leen fa armée moo lay wan ne suñu dëkk dëkk doomu xaraam la moom laa leen ne woon armée bi ay bécco la ñuy sol waxoon naa leen ko amul colonel buy sol ndayem silib bu normal string la ñuy sol waxoon naa leen ko booy la 9 2 man fa laay entraîné booy booy 92 yi fa laa leen entraîné félicitations mes jeunes comme un policier peut tirer sur un jeune adolescent comme ça moi je vous le dis et je vais le redire je vais défendre les enfants les jeunes vont tout péter. Ça, c'est logiquement... C'est leur seule façon de s'exprimer. Parce que là, c'est déjà fini. Le petit, il est déjà mort. Nous, au Sénégal, on a combien de morts Prison, il y a une Eh Vous Sonko ko Sonko projet ki yaakaar ne dangay nekk numéro deux ci projet bi nax nga sa bopp numéro zéro virgule cinq sax doo ko nekk un dong mooy am chiffre bi wan la wan mooy chiffre bi ta Macky xam na bu baax lu ñuy wax tëj beeg du ko tëj dinañ enlever Sonko ga mais boo leen taalee dëkk bi taal dëkk bi loo leen mënti taal dëkk bi dinañ ko réeral six jours yu mat ak lu taal yi tàng tàng tàng fokk coup d'état am fokk Macky Sall jóge fi pour Sonko feeñ mais au bout des six jours di ngeen mën a xam ne mu ngi fii mu ngi fii moo tax ma ne leen woon combat bi foog mu rapide foog mu extrêmement rapide bi pas liaison bu gaaw lañ soxla ay combattants yi farouche lañ soxla sur le terrain ñoo xam ne même quatre heures du matin bu ñu leen ne hop ñu ne la jaar nañ tel lieu dugg nañ tel lieu ñu mën leen fekk lieu boobee loolu laa gëm fu mu toll nii boo yoo xam ne pare nañ boo yoo xam ne ni ñu doxee si suuf si la ñuy paroo la ñuy pare pour sàngoo suuf soosee est-ce que dégg ngeen code ba ni ngay doxee ci kaw suuf tant que pare woo ko pour sàngoo suuf soosu adduna si jamono ji ñu toll kenn du la respecté te les dés sont am na ñu dee ba pare. am na ñu nekk ci kaso bi ba pare carte gi ñaaw na ba noppi Farba Ngom am na leneen lu ñu demaat jox sëriñ si commencé nañ si réunion bëkk néegu sëriñ sëpp jot nañ si mais Sonko salafiste la bés bu fi toogee mooy jumaa yi di ngeen julli par force dootul am ay julli Tuuba ak julli Tuuba woon te loolooy dëgg benn yàlla kese la ñu war a jaamu benn yàlla ja al aq wa nig mal baatini kenn kenn kenn kenn ku dul yàlla kenn kese la war a jaamu ku dul yàlla rek pour clôturer mu ñëwaat ci phase su sëriñ si pour wax leen yéen waa APR fi ngeen faussé waat débat bi l'an 2000 su mënoon wax ñu xam kuy sëriñ Saliou l'an 2000 bu mënoon wax ñu xam kan mooy sëriñ Saliou l'an 2000 bu mënoon wax ñu xam kuy sëriñ Saliou politiciens yi xam nañ bu baax ñan ñoo may fekk keur Serigne Moustapha sallou xamanté nañ ñun lat la ñu ñu recevoir ak ñu ñu ju recevoir fofu du n'importe qui mo fay dugg lima ma leen waxoon laa leen di jaawale mam wala saga set remonté ba ci mamam bu yagge nga togn saga set remonté ba ci mamam bu yagge nga togn

ak ay butéelu yu ndaw butéelu dissolvant ngeen nokk ci ay essence taal ko mu fëp fëp fëp bu dugg 100 mètres lu leer laa leen wax carte gi leer jàpp Sonko ñu dem dugg palais xaar militaire yi ñëw jël palais libéré Sonko ñu demaat toog defar réew mi deux ans ñu dem élection wala Macky Sall jàpp Sonko ñu xeex six jours mu décréter état de siège état d'urgence ñëpp dem ardo toog ñu reporter élection yi pour raison de sécurité rocc Touba kenn dootu fa voté pour des mesures de sécurité comme ñoom nag ñoom mun ñaan indépendance indépendance bi mënu ma ci wax nay leer de mënu ma nekk waa Casamance di réclamer indépendance di ñaan indépendance sëñ Mountakha di wax waxi indépendance man ma ñëw di ci wax je serai incohérent li ma leer ba leer mooy Touba village la ci biir Sénégal Touba superficie boobu ñu fa ubbi yëpp bokku ci mètre carré da ngeen ne titre foncier la mais mètre carré yu Touba moom ah bu leen tax ñu liir ko mètre carré yi Touba moom jumaa jëla sëñ Touba titre foncier bu wóor te wóor mooy Jurbel kër gu mag ak jumaa moom jooju boobu dafa wóor ne titre foncier sëñ Bamba la temps fi am lii ba lii yëpp moo ko moom tali dañ ko fa romb ko fa mais lolu yeb sëñ Bamba ko qui lolu mom moy titre foncier am boobu fay ci galam Touba pàkku néegu jaamu yalla la fa tout ci bir àll ba ko Touba muy garab après la ñew mo ngi ay côté côté titre foncier mais xam len ba ñaata mètre carré wala ñaata hectare mooy titre foncier ba ba pare c'est très important pour li jëm ci loolu pour xam indépendance xam nga man Casamance fexe naa ba xam ne Casamance Koungheul la yem xam nga man fexe naa ba xam ne Casamance Koungheul la yem yéen ñii murit maa ngi gis ñu bëri di jubile waay mais fexe leen ba xam ñaata titre ñaata mètre la boo leen xamee ñaata mètre carré la bu fekkee mètre carré yooyu wala hectare yooyu titre foncier la waaw ñu jox leen ko. mais Sénégal il faut que nous ayons ñii hectares Ablaye fi 10 hectares ah c'est raisonnable mais 10 hectares mën ta que... ah 10 hectares mën ta nekk pour mu nekk comme Vatican nag nekk une cité religieuse ak Touba qu'une une ville indépendante Le Vatican il y a la police italienne ak Vatican Vatican un domaine bi Rome dafa am mais Vatican ak Rome Rome capitale économique Rome Rome la Vatican mu mel waaw mu mel rek Touba superficie université bi école une cité religieuse mais Touba trafiquants de drogue trafiquants d'armes fraudeurs nga bëgg a dagg loolu yëpp ne leen fii day Vatican we déedéet du ko fi Vatican we de négatif négatif foofu dafay mafia mais du Vatican we dëkku mafia munta Vatican we Mbàkke Bàlla ay se leer na ma ne gaa toog ñoom euh, euh, déedéet munta Vatican we de munta nekk Tuuba dëkki mafiosi la def na ba nanguñu lu jaar yoon jaar yoon amu fa ci commerce bi rek ci lépp fa yem Touba dëkku dóor la dóor dóor ku mën door yaa fay réussir Touba dëkku dóor la saa yu dama maîtriser bu baax lu may wax waxantuma Touba dëkku dóor la banque yi moo tax affecté tuñ fa jigéen da nga fay affecté sax sa jabar ñu dóor ko fexe ko génne si banque bi jël dugal seen kër yi te ku sant Mbàkke moo la koy def en connaissance de cause laa xam lu may wax dofuma foofu ñu bëgg ne day Vatican yooyu déedéet Vatican ab gox la bu mat dix hectare bu ñu tëj def fa ay nitu yàlla dong def fa ñoo xam ne dañuy julli dong tegal leen ay garde ak yëpp ñuy garde loolooy Vatican mais Vatican amul nit ñi comme ñun dëkk fa génn ñëw caab dem feet ça n'existe pas Vatican leneen la gars yi nee naa leen dee leen wax sëriñ bi dëgg dee leen wax sëriñ bi xam nga gars yi dañuy toog ndeysaan xam nañ ne sëñ bi yooyu ça na le concerne pas ñu koy expliquer ne ko waaw dañoo war am indépendant na ko Macky signé gaaw ndax xam ne ni Sonko mi ma a tuñ ko dara bu toogee fii gars yi gars yi ñoom ñëpp ñi nga xam nañ ne moment bi xoola wër na ñoo wër a wër ba sonn xam ne ne kenn mënut a tere Sonko doon candidat moo tax ñuy profité ci Touba bu Vatican ah bu Touba Vatican yi de man de kon sama Casamance ne dëgg rek a neex yàlla su boobaa dama bàyyi seen wax ji nag ñibbi Sénégalaat dem Casamance man je prends les armes waaw sama indépendance depuis 40 ma koy xeex jotuma ko ma bëgg am autonomie léegi waxatuma indépendance autonomie la wax pour mën a gérer sama bopp am une local am samay déplacement local créer samay bisu bopp local ñu bañal ma ko tey bi wax ko waa léegi lu ñu bëgg qu'est-ce qu'on va faire et sincèrement am suñu lépp biir Ziguinchor région bu nek tay Touba tay bo leen nañ am monnaie locale surveiller ko ku na ressources ku na ressources indépendance jox la autonomie comme Touba autonomie vous allez accorder l'autonomie de la Casamance pour accorder l'autonomie de Touba man la wax Touba comme une cité religieuse lolu mom ko bañ Touba comme une cité religieuse mais Boba ça sera délimité mosquée, universelle, ça serait délimité. Mais la population de Touba ne peut pas vivre comme le Vatican, ne va jamais être comme le Vatican, jamais. Parce que là-bas, c'est déjà parti en couille. C'est la mafia qui domine tout, c'est l'informel. Informel, c'est mafia. Informel, il n'y a pas de sentiment d'or. Ku gën y a yaay réussir point final Ma femme.. il y a mon dëgg ma sonal maa gërëm Malgré waaw yàlla na lekk yi rafet jar lu waay ragal yàlla na ko yàlla dàqal àq yi mënu si ñàkk ndax wax day neex kenn du neex keneen moo tax de balu gauche droite bi nekkuma si li ma leen waxoon laay waxaat de nekkuma ci parce que ku nekk yorel naa la àq boo xam ne si yéen ñi ñemew ma la ko wax kon lan moo tax ma naan la bal na àq di ko waxee fausseté mu yem sama làmmiñ nekkuma ci ku nekk si yéen man yorel naa la àq boo xam ne Munu la ko wax Konleg la ko wax kon léegi lu tax ma la nan baal ma te suba ma ñëwaat def live tegaat la pression bobu muy akkat gay yalla na sutural sutural lu yëpp xaj yalla na sutural yang suturaal sutural. nañ loh suturaal keroog daa am loo xam munu mako jall suñu mardi bi passé mardi mam mawda malik si Hey, mardi bi passé cent un ans jour pour jour talaata Mame de Malick Sy 1922 l'érudit Mame de Malick Sy le grand révolutionnaire Mame de Malick Sy mi Andiko. jëlee mu defar ba dóor zawiya en face palais présidentiel gars est-ce que xam ngeen kan non man damay daanooti leer rek ndax dañ ma naan bàyyi faalu sëñ Mansour Sy baa ngi fi garaawul ndax sëñ Mansour laa toppoon fépp toolam yeeg fu ne laa topp sëñ Mansour xuruseeg fu ne fune. ne ndax man dama ko faawoon Fune la laa ko topp Mega gars yi maam Maodo Malick si keroog jour bi mu tombe jour Arafat ñëpp di astafurla ñëpp di jégalu sen borom maam Maodo yal na suuf woyof sa kaw yal na la yalla yërëm yal na yalla def yërmande sa kaw maam Maodo maam Maodo yalla bu yakaru jami tas yamal xiyaam yakar bu ñu am ci yow maam Maodo yalla bu suñu yaakaar tas yamal xiyaam maam yalla bu suñu tas yamal yàlla fi yàlla teg sa zawiya yi yàlla nañ la fa fekk yomal xam maam Maodo yàlla na suuf woyof sa kaw maam Maodo yàlla na suuf woyof sa kaw yàlla na wéetaay bàmmeel sori la nga dajeeg Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ki saabaam ya maam Maodo Malick si affaire boobu keroog daf ma marqué li ma warul daf ma métti mais daf ma marqué bi mu tombé cent un an maam Maodo Malick si tombé jour mardi mardi bi mu diisee si Tidiane affaire bi ma marqué woon man nag kenn mënu ma wax lu may yëg du ma def révolution ba génnee ci maam Maodo du ma def révolution ba génnee ci sëñ Bamba maa ma génnee ci El Hadj Omar Foutiyou jamais de la vie ñii dañu gàddu jaas yi xeex ñii gàddu kayit yi di wax di xeex ñii gàddu seen bët di xeex ñii toog fii di ñaan di def ay durus di xeex fépp la ñuy xeexee bu xeex bi foo rek te mag ñi mosuñu fësal seen xeex buñ ko fëse woon bii heure tey seen seen i kër du yegg si fii jërëjëf maam Maodo liggéeyal nga yoon mais say sët topp ñu la mooy jërëjëfe sëñ Bamba liggéey nga lu ne mais sët yi topp ñu la jërëjëfe Baye Niass liggéey nga lu ne sët yi topp ñu la maam Limaamu la même chose liggéey nga lu ne senegal Sénégal maam Limaamu mais say sët topp ñu la booy Malika lu ne lay wax mais say sët topp ñu la ñoo nekk si mafia bi seeni sët a nekk ci mafia bi yéen maam maam yëpp lay dal dangay liggéey ba dee sët ñëw yàq ko wala doom ci àdduna la bokk

boo buggee dajeeg rasulullah sallallahu alayhi wa jàngal maam Maodo Malick Sy jàngal ay xasidam wax naa leen ko ba tàyyi kenn mënul bind rasulullah mu mat Sénégal ñii dañoo bind nopp ñii bind karaw ñii bind bët ñii bind bakken ñii bind yéen boo ko dajalee ngay gis rasulullah mais amul benn mag bu bind Muhammad amul ça n'existe pas amul kenn sax ku am maqaama bind ko amul kooku c'est l'entendement suprême maa ngi daanooti jooy jëf